yéen yàlla xëy ci xasida yi taw tawfeex waaye da ngeen am taw tawfeex ju ànd ak xaas la sant ci yàlla bu baax jëgn ci kenn mag secret baa secret baa ngoo fonkal sëñ bi xasida yi moo gën a gaaw moo gën a gaaw ci jege sëñ bi moo gën a gaaw ci am ngërëmal sëñ bi moo gën a gaaw ci defaru doomu kon sëriñ bi nee ne boromam subhaanahu wa ta'ala jox na ko cani hóorul ayni yi kañ la ko ko jox mu ne gaal gi nga xam ne mi ngi ko liggéeyee ca géej ya bi mu nekkee ca géej ya gaal yam doon liggéey te lépp di ay xasaayit ci la ko yàlla wommatalee cani hóorul ayni yi may ko ko jox ko ko ne lépp mu ngi ci loxoom moo xam ngay murit wala ngay tiyan tekkiwul na yàlla bu jëlee can ya may ko sëriñ ba rek moo xam tariixa boo mën a bokk yow doo ci am moom daal taqwaa na nekk ci yow rek ndax moom bi muy nettali ci Ahmad Suleymaana jigéen warul ay nii dana ilas la sis daana bi taqwaa bi taati nee ne seenu can kenn du ko am lu ragal yàlla kon bi ko yàlla may itam du tee ku ragal yàlla itam danga am ca can ya ragal yàlla ak sax ci lislaam ak sax si sunna si yonente bi salaay salaam ak mooy ci alquran nee na mooy may cene ko wuroon ay ni cene wuroon ay ni daal nee na loolu rek moo koy maye du leneen loolu ragal yàlla moo tax ne yàlla jox na ma cene yi wuroon ay ni yëpp ci sama gaal gi nga xam ne dañ koo liggéeyee ci biir géej ja daal ne gaal gi dafa fees dell waaye nee na lu muy fees fees dell mboolem baat araf par araf wu ci ne rek yàlla ma koy sax baat bu ci ne yàlla ma koy sax may bind may bind may bind ba gaal yi fees waaye nee na bi pare itam comme sama borom moom ko doon sax dane ma ahmadu may naa la boo xëfee xëppi boo noyee noo man di def rek man yàlla bindal la payoon ngir lan ci barkeeb fulkul na laqanani fii fulkiyal masxuudi man lii yaquudu ajra kullahi sànna ma ci sama gaal gii nga xam ne bu ñuy sëf la ba mu fees dell ci ay xasaay kan mu ne man li yuquudul ajra kullihi yàlla mi nga xam ne dan ma womatal yoolam yi yëpp ci bipp jamono sëñ Tuubaa bu ko fii xippi bu doxee bu nelwee lépp yoolu yàlla day ñëw ngir loon barke fulkul masoon dalli waxaat ne noon yi lañ doon nas yëpp ci géej gi nañ ci man dara te duñ ko mos a man nag sama tuuraanke mënuñ ci man dara fexal nañ ma nu ne jéem waaye nag mënuñ ci man dara maa ngi fii tey jii ci njaarim ci sama suuf nee na mbég yi ñu ngi womatul seen bopp di ñëw ci man nit ñu baax ñi mbég yi xéewal yi yëpp ñu ngi womat di ñëw ci man daal ne yàlla feeñalal na ma mbóot moo xam ne dañ koo nëbb dañ koo ñoŋal mooy kenn du ko gis ku dut man waaye bi ma ko feeñalee ba noppi da cee gàll baaraasi ko laa ilaha illallah nga xam ne kenn ci raay goo xam ne dafa jëre teg ko ci kenn du ko gis ax faa feeñalal na lii ñel ma asira mbóot almasoona ba da bu ñoŋal yàlla bi shirri ci baaree laa ilaha illallah laa ilaha nu mu amee doole buñ ko jëlee gàcc ko ci suru boobu kenn du ko gis kenn mëntu bëtt baras boobu gis nga kon yàlla gis nga lim ko baaxee mu ko defal kon day wane ne yiw yëpp ngi ci xasida yi comme boo xëy ne fulkul masoonam bii mu liggéeyee ca gaal ga ci la ko yàlla di wamatalee yool ci bépp jamono kon yow mi koy jàng itam kasaalika naka noonu yow mi koy déglu kasaalika naka noonu payor bi noonu la la ci fekk léegi kon mu continuer ak ndaa di ne xibaatu muxnin waasi an lii saxidat bi busarin walil xalaayiqi badat daa di ne xibaatu muxnin may yàlla muy aji doylu ji waasi an tey aji yeetu ji tey aji yeetale mayam ji la wax di waxoon nit ñi waxoon nit ñi de saxidat seedeel nañ lii ñeel ma bi busarin ak mbég muy bàyyi ko ci yàlla di ñëw ci man te nee na wa badat leer na nañ sax lii lil xalaayiqi ñeel mi ndéef yi xam nga luy badat mooy koo xam ne même boo ko seediwut ci sa làmmañ sa xol moom leer na ko fu ne ku añaanul xam nga ne mayi Sëñ Tuubaa yi ci sa xol goo koy njëkk a yëg danga naan kii dëgg-dëgg saa borom defal na ko te gis nga fu ne nam tàmbali woon xasida gi xasida gi xool ni ko tàmbalee ak ni mu ko tëjee da ngay xool ni mu tàmbali woon jëmmi xasida gi ci boppam ak ni mu ko tëjee ni ñu wutee te lépp rek dafay daf siy jublu sant suñu borom subhaanahu wa te xasida gi bi mu koy tàmbali xam nga dafa waxoo ne weeri saa borom ñëpp seedeel nañ ma mbég muy bàyyi ko ci yàlla di ñëw ci man ndax xasida gi moo tudd saxru ramadaana saxru nusuli kitaabillahi mooy weeru ramadaan wi nga xam ne ci la yàlla wàcce alquraanam ci léegi nag bayit ba njëkk ba mooy suxuuru rabbiya ma xam lii sahidat bi busurin min huwa lil xalqi badat weeri saa borom yëpp seedeel nañ ma mbég muy bàyyi ko ci yàlla di ñëw ci man ahmadu te nee na mbindeef yi buñ ko seediwul sax maanaam leer leer na mbindeef yëpp donte seediwuñ ko seen lamañ waaye seen xol leer na waaw bi bu sërin minhu walil xalqi badat baatam badat mooy loo xam ne yow dalaa leer nañ naññi nañ même boo ko waxul si làmmiñ moom sa xol moom jàpp na ko xam na ko te noonu la demee nag fu ne ñëpp xam nañ ko ci seen xol waaye nag seen làmmiñ du ko wax de ñi bañ sëñ tubaa ñëpp seen làmmiñ du ko wax waaye may yi moom ñu ci sëñ tubaa waaw nga nangu ak nga ñàkk nag loolu dogalub yàlla dogalub yàlla moom kenn mënu ci dara defe naa waaw dogalub yàlla kenn mënu ci dara lu yàlla di def la yàlla moom lu mu def kenn mënu ci dara bokk yi kon gis nga bayit ba mu njëkk tàmbali weer yi la wax ne ñoo ma seedal weer yi fii moom waxut weer yi waaye dafa ñëw ne may yàlla yi ñoo ma <laughs> may yàlla yi ak weer yi waaw ah, waxuñu mbindeef yi ah mbindeef moom donte leer na leen waaye duñ ko seede seen xol nag duñ ko wax ci seen lamañ leer na eh, eh, eh, leer na leen naññi seen biir xol nag waaye duñ ko wax seen lamañ yi man xibaatu mux nin may yàlla muy aju doylu ji mux nin mooy koo xam ne soxlaalu kenn kenn soxlaalu dara yi lenn. yaa ayyuhan naas antumul fuqaraa ila llaahi wallaahu wal ganiyyul hamiid mooy koo xam ne ñëpp ci moom di wuti xéewal waaw mooy koo xam ne ñëpp dañoo maam mu jëm ci moom di wuti ay xéewal waaye moom du jëm ci kenn nee na mayam moom muy aji doylu ji waa seen tey aji yaatu waaye di yaatal ku ko neex dina saxiidat mayam ya ñoo seedal lii ñeel man sëñ Tuubaa waxuma yéen bindee fi de bii bu sëriñ ci bég waaw bég ma bég ci xéewali sama yi ma defal nee na yi ci bopp ñoo ma ko seedal te nee na daat leer na naa ñi sa leer xalaay xa ñeel mi maam doon waxuñ ko seen làmmañ seen xol yi moom mang ca léegi mu tax la geneen xasida bi saxri ramadaani masasi léegi nag mu ne xasida gi mooy soxru ramadaana masas mooy 1340 ci gàddaay Yonent bi sallallahu alayhi mooy at mi mu nekk njaarim talsas daal di woote màggal gi at mi ci topp mooy 40 masas siin su tooy si 1000 siin su wax si 300 mim gi 40 mooy 1340 ci gàddaay Yonent bi sallallahu alayhi wasallam mu ne weeru masas nag ci la taalif yi xasida gi di sant yàlla ci xéwal yi mu ko defal foofu ci njaarim basara nii bégal na ma gis sol ardi yàlla muy borom suufi juróom-ñaar was samaa ak asamaani juróom-ñaar tafsiira si xóotin mbigtim borom ak dundal bégaluk borom ak dundal wa xayri maay ak ngën ci ak ndox kon day wane ne yàllaa ko doon dundal foofu mais yàllaa koy jox ndox xam nga Sëñ dafa yegg ci yàlla foo xam ne bu soxlaa ndox du wax jottali ma yow Ibrahima Seck jottali ma nangam mag ñi dugg ci wax kenn yàllaa koy jox lu muy naan yàllaa koy jox lu muy lekk yàllaa koy jëlal bopp mu joxal ko mu naan ci géej ji leeram yi ak dund yi bokkul dund yi xam loolu moom ñoom gars yi yàlla ñoo ko xam waaw waaye yi nga xam ne moom lañuy togg muy saf xorom bi saf ay jumbo ñi jox ko sëriñ muy lekk déedéet loolu moom yàlla diggante bi yàlla moo koy jox moo tax ma ne gis nga sol ardi wa samaay gis nga tur yim lay jox dafa doy waar dafa yéeme bégal na ma ñi ne kan moo la bégal waxut keneen te pourtant tur yàlla bëri nañ mu ne sol arda yàlla muy borom suufi juróom-ñaar wa samaay ak asmaani juróom-ñaar daan ne tafsiri suy xóotin bégalug borom ak dundal koo xam ne mooy dundal ñëpp bégalam lu ma bégalee moom muy borom asamaani juróom-ñaar ak suufi juróom-ñaar waxee rimaay ak gën ndox kon yàlla moom mooy dundal di jox gën ci ak ndox daan ne sakkara sant na lan moo sant yaa sant wala ñan mu ne xëll mi samay xalima gi sol xarsi yàlla muy borom aras la sant alansi mi tey aji màgg wa saha xatta moom yàlla wéral na aljis ma yaram wa wa af naata jeexal na àll mi samay métti nee na sant na samay xalima si boppam samay xasida yi fu ne ñoo commencé di sant yàlla muy borom aras waaye yàlla nag rafaatalee ma ci def sama dundu peleg nga xam ne dootu feebarati moo tax yàlla dindi ci ma lépp li métti ndax nit ki wér-gu-yaram ci la lépp nekk gis nga boo amee wér-gu-yaram rek dara jombat la karawoyit la lu ni mën ko am ci kaw suuf waaye gis nga boo boo amee ñàkk wér yàlla xëy na la lépp yàlla nga la joxe wér gi yaram rek ci nga ko war a gën a sante fu ne xéewal gu yàlla di njëkk laaj ëllëg doomu aadama mooy wér gi yaram ana wér gi ma la joxoon su ma la tus aloon yow amee seen anin na anin gis nga xéewal xéewal yëpp giñ cee njëkk laaj ci mooy wér ndax moom boo wéree rek jox nañ la jox nañ lépp kon kay jaamu yàlla rek la war fu ne boo demee ci lala hôpital yi am na ñoo xam ne fu ni bëgguñu bëgguñu tene de xam nga lu ñu bëgg faatu parce que fu de tawat nañ tawat nañ leen di faj lan lañ bëgg mooy nañ faatu rek mu ni xibaatu mox nin may yàlla muy aju doylu ji jàlla koog jomb na an askaali walis dara di lënt ci moom nee na aw salta eggale na ko lii ci man mun na bixa mbir moom muy aji yeema moom yàlla al askaali ci yi nga xam ne mooy yu lënt nee na may yàlla muy aji doylu ji mox nin gis nga turum indiwaan ne kon sant yëpp sant yu am am doole bokk yi mu delloo waxaat ne revahtu xidmati ilal maahi nabi muntabisan an axrabin wa ajnabi rafaxtu yëkkati xidmati sama liggéey bi ilal maahi jëmee ko ci yonente ba yàlla di faree ci moom ak kéeféer an nabi ka yàlla dee jox ko xam-xama nubuwa ca yàlla muntabisan an axrabin wa ajnabi muntabisan mbir moom muy aji sànni xan aqrabin wëlis képp koo xam ne aji jege la wa ajnabi ak koo xam ne aji sori la waaw nee na naa sama liggéey bi jëmee ko ci yonent bi salaa salaam waaye nee na ku ma jege ak ku ma sëri ñëpp yonent bi na leen ko ñoom ñëpp sama liggéey bi nangu gi ko yàlla nangu ak yonent bi salaa salaam na ko ñëpp moo xam ku ma jege ak ku ma sëri moo xam koo xam ne daf maa jege moo xam ci diina wala mu sëri ma wala mu jege ma ci bokk wala mu sëri ma yëpp ci am waaw ko koo xam ne dañoo bokk diini ji wala koo xam ne nii dafa maa jege nii ci dere rek wala koo xam ne dafa maa sëri gis nga ci askan. nee na bi ko joxee yonent salaay sam daal jox na ko képp koo xam ne ku ma jege la wala ku ma sëri la ci gaa yàlla yi. moo tax ma dafa toog yëkkati naa xidmati sama liggéey bi ilal maahi jëmee ko ci yonent ba yàlla di faree ci moom ak kiifir annabi kada kuñ dee jox xam-xamu nubuwa mun tabisan mbir moom muy aji sànni ko an axrabin walis képp ku képp kuy aji jege wa aj na bi ak ko sëri kon day wan ne bi gërëm na liggéeyam waaye ñu baax ñëpp gërëm nañ ko muy jullit ñëpp la ci jublu ndax waxul ihmaloo fa sa yara laahu amalakum wa rasuluhu wal muminuuna wa sa turoo doona ilaa alimil leen te xasida yi liggéey bi jëf la su ngeen jëfee yàlla moom gis na seen jëf ak yonentoom waaye nag jul yooyu jullit ñiitam ñu baax ñi dañ koy gis kon moo tax mun tabisan an axrabin wa bi radda ba tey delloo na dellool na lii ñeel ma almuhidu yàlla muy aji delloo lépp xaama masasin ci ama masas la ma jox maa faata lépp loo xam ne daf maa rawoon daf ma faatoon minib ti daa it ci sama njëlbeen asasin ta mooy asas sama njëlbeenu tàmbali liggéey mooy at mi ma sos yoonu murit nee na li ma faatoon lépp masasin 1340 ci la ma ko yàlla delloo si jox ma ko nga asas ci la fondement wu ci la ci la fagaru lam doon def ci xeeti jàngale yépp mu commencé nag bi ko yuntu saa san fii ñoo ne ko nag bul yemate rek ci njàngaleem kese waaye nag léegi nag dal yar say dongo ci himma mooy di leen tarxee di leen yóbbu ci yàlla waaye bul yemate rek ci jàngale kese mi jàngale na nag léegi nag day yéegaat ci beneen niveau ngir lan war yóbbu nit ci yàlla waaw war a yóbbu ci yàlla waaye lu ko jiitu yëpp mu nekkoon ci baayam daan jàng daan jàngale tabarkalla lépp daroon jàng rek di jàngale waaye nag bi mu taxawalee yoonu murid moom ci la def lu ñuy wax maanaam commencé yóbbu nit ñi ci yàlla moo tax lu ma doon faat ci asas rek 1301 ba 1340 jotee rek ci la ma ko yàlla jox gis nga rada delloo si na lii ñun ma almuhidu yàlla muy aji delloo lépp ci mel ni picc ba ëllëg yemal xeemee delloo si na ma mooy jox na ma ama masin ci ama masas maa faati ne lépp loo xam ne daf maa rawoon daf maa faatoon minib ti daa yi ci sama njëlbeenu tàmbali sos yoonu murit asasin ta mooy asas malaktu moom loo naa afdalal baraya ngën ci mbindee fi yàlla yi xëllami samay xalima wasaani nii te ñoŋal na ma añil xeddaa wëlis noon ya wasul la mi ak tooñaanga ya nee na moom loo naa ki ngeen ci mbindee fi yàlla yi samay xalima laa ko jox waaye sama xalima boo diggee moom loo naa ko mooy tagg ko rek ngir bëgg ko képp moo tax ma di ko def moom rek laa doon tagg waaye tagg gi lenn moo ko lal mooy bëgg ko moo tax ma ne bi ma ko defee itam moo ma ñoŋal aar ma protéger sama ci noon yi ak lépp luy tooñaange to mucc naa ci noon yi ak seeni tooñaange lépp mucc ci ndax nit ki même sa noonu man na laa bañ a ci ay cëram waaye nag tooñam rek mën na laa lor loolu ma ta xel nit man mën naa ñàkk a xeex ak yow nga xuloo moom mu wax la baat boo xam ne dal la naqari waaye nag du xeex ak kenn mënu ci dara kooku mooy sulla bi malatu moom loo naa afdalal baraaya ngën ci mbindee fi yàlla yi xëlam yi samay xalima wasaane nii te ñoŋal na ma anil xidaa walis noon ye wasulu mi ak tooñaange lépp ñoŋal na ma ci musal na ma ci aar na ma ci protésam mu dellu waxaat ne du mat kitaabati la dal jasaa'iri li yawmi qaadin bi xaaja saa'iri inna kitaabati la daa sawil qumóor qad waanat baxdu makaa'id amir ay sëñ Tuubaa sëñ Tuubaa nee na du mat boole na kitaabati sama mbind mi la dal jasaa'iri fa iilimaa yomba jamho jasira li yow min ñeel bis bii nga xam ne xaadin aji fajee la biyee ci man xaaja saa'iri xaajo koo xam ne daf may siyaare si sëñ Tuubaa nee na ku mu fekk ci njaarim xaajo boo mën a am xaajo bu ndaw bu digg doom bu magal yëpp yëpp faju na am nga këroon bind ca jasiira maa yomb yi di wax la noon yi de teg ak tooñaange yañ koy def mu ñëw ci njaarim nag nag maanaam suma mbind mii faj na gàcc yooyu nga sëñ daan bind ci géej gi ak lu muy bind ci njaari bokkuñ fee da daan bind di ñaan di tuub di nangam loolu muy def diggante ak borom ngir noonu ni ñu koy sonal waaye bu ñëwee ci njaari moom déedéet ñu baax rek koy ñëwal di ko siyaar si xam nga wuutee naa fa nga xam ne nag moom ñu bon ñu bon ñi ñoo ko wër di ko ñaawal lu ne ñu indi ko lu ñu yëg na rek lii mbiri ëpp na rek ñu ñëw teg ko ci peggam jàpp du mat kitaabati la dal ji saayri tàppee na sama mbind mi fa ilima yomb ci bis bii nga xam ne aji fajee la ci sama jëmm ji xaajoo koo xam ne daf may siyaare ci la tàbbee sama mbind mi fa may yombay boole ko ca inna kitaabati sama mbind mi nga xam ne bind naa ko la dal la daa sayul xumóor yi fa borom muuru ñi ay xel nee na xat waxa na doxo dal ci gannaaw gi makaa ida amir pexem buur ba pexem buur ba yëpp ba tey ci géej géej gi lay wax géej gi lay gëstu mu ne mbind ya ma defoon ci géej ga fa nga xam ne ñu muuru xel ay naankati sàngara lañ moo ñi nga xam ne seen dañoo naan sàngara ba am a ak seen sogo seen xel yëpp dem nee na moo doxo dal ganaar bu ma bindee mbind yooyu moo doxo dal pexem buur bi ma doon sonnal pexem buur bi mujj na do naxasaay mujj na doxo di soxlaatul ma sax ki ma téyewoon ci géej gi yëpp pexem buur bi moom mujj na fu nii maanaam mbind yi ci boppam ñoo ko doxo léegi amatul ci man soxla inna kitaabati naka sama mbind mii nga xam ne bind naa ko la daa sawil xumuur fa borom muuri ñi ci ay xel mooy xasidaam yi rek la la ci jublu nee na xasida yi mu bind ca géej ga te mu nekkoon ak ñam ko siqootoon mooy nasaraan su manqué xel ñu muur ay xel ba mënuñee gis dëgg nee na xat waxa na dox dal na boxadu ci gannaaw ga makka idal amir pexem buur ba kon xasidaam yi yim doon taalif ñoo dox dal pexem ñi ko jëloon yëpp yóbbu ko ci géej gi seen lépp naxasaay am mu jig na amatuñ sax soxla ci sëriñ bi mu ngoog sëñ bi moom saa borom na ko loolu kon mat naa bàyyi xel ba tey mu wax ne naabat kitaabati la daa ahlil kitaab xanni suyuufi wari maaxila atab naabat wuutu na kitaabati sama mbind mii la daa kitaab ma ma ko séqantoog fa ñooñ ahlul kitaab wuutu na andi suufi walis jaasit ya wari maax yi ak xeej ya la ataab te diitug yaddaange yaddaange amul ci nee ne yi may taalif doon ko taalif ca waa ahlul kitaab nasaraan sama yóbboon ci géej ga nee na moo wuutu jaasit ak xeej xam nga xarekat bu mos a jaar ci lislaam di xare da dafa baaxoon a tikk ay jaasit maxaa far na moom yàlla mu xaalatatiya ñi nga xam ne dañoo jaxasuwante woon ak man alfu jaara ca kàccoo kan maahin ki nga xam ne mooy aji far li xayri mu jëm ci ku dul man xat na faa daq na man ña nga xam ne jaaraa dañoo jeng nee na képp ku doon ku jaxasantoog man ci kàccoo yi ndax kàccoo ñoo ko wóoroon ci géej gi ñoo fa nekkoon ne léegi yàlla dindi na ko kan moo ko dindi mooy ki nga xam ne moo daq képp ku jéng nga xam ne dootul ma sëri mu jëm ci ku dul man moo ko dàq kii ko daq mooy maahin mooy aji farji te mu yonent bi sallallahu alayhi nee na nag yonent bi képp ku doon jaxusante man ci kàccoor yonent bee la dàq nga jëm ci ku doon man ba noppi képp ku jéng yonent bee la dàq ba dootoo ma jege man Sëriñ Tuubaa maxaa far na muqaalatatiya aji jaxasante woo ak man alfu jaara ci kàccoor ñi jaxasante woon ak man ñëpp far na leen maahin aji far aji farji moo leen far xat na faa dàq na li xëyri bu jëm ci ku dul man man ñi nga xam ne jaara jéng rek kon aji far ji te muy yonent bi salaay alayhi di ci turam la bokk mooy maaxin léegi nag moo daq ñi doon jaxasantoo ak man ci géej gi ànd ak man moo leen dàq jëm ci man waaye bu noppi ñi jéng ñëpp dàq leen jëm ci ku dul man maa far na muqaalatatiya aji jaxasantoo ak man alfu jaaraa ci ñi nga xam ne ñooy kàccoor yi kan moo ko daq kan moo ko far mu ne maaxin aji far ji ba tey xat na faa dàq na li xëyri muy jëm ci kudul man man ñi nga xam ne jaaraa dañu jenk saaxa màng na li xëyri jëm ci kudul man allahu yàlla man ñi nga xam ne jaaraa nii dañuñu jenganteeg man li talabil mu ngir sàkku mbébét ya mi nasaraan yi mu bàyyi ko ci nasaraan muy di jëm ak ndimba rek yàlla moo màgg mu jëm ci kudul man ñi nga xam ne dañu ñëw ci man di wane seenu dëngati ak seenu jeng yàlla moo leen màng màng mooy koo jiital ci ay xet di ko dóor muy dem ngir lan di sàkku ci ñoom bébét maanaam xam nga Sëñ Tuubaa mostu wax nasaraan si ne ñëw leen ngeen dimbali mokk ne loolu yàlla ko dindi ci man li tallabil mun naa mi ne nasaraan ngir sàkku mbébét muy bàyyi ko ci nasaraan si naan leen ñëw leen ngeen dimbali ma déedéet loolu Sëñ Tuubaa mosu koo def kon lépp di wane rek sant borom subhanahu wa taala ñi ko musal ci noon yi moo tax ma ne saaqa màng na li xëyri muy jëm ci kuréel man allahu yàlla ñan la màng man ñi nga xam ne jaaraa dana danañu ñëw di jénganteeg man maam di wane seenu dëngati seenu jéng di talabil mun a ngir sàkku sama mbibét mi ne nasaraan ñu bàyyi ko ci ñoom nasaraan si maam daal ñi nga xam ne dañuy ñëw ci sëñ Tuubaa naan ba ah yow de xamal ne dañ la rey de fi ñu jëm ne ci géej ga lenn daal moom boo ko defoon moom xam naa ne moom danañ la bàyyi di bëli la nee na yàlla moo moo màng mu jëm ci ku dul man ñu ñu dama wax loolu ngir jéng rek moo tax ñu ñëw ñaan ma yow Ahmadou de boo waxoon ñi dimbale la waaw waaw saaqali xayrillaahu man jaaraan yi li talabil mu naa mi ne nasaraan ñoom dañuy ñëw seen jéng gee waral ñi ñëw tooñ ma ba noppi yóbbu ma ci gi naan ma boo bëggoon taxat ñi dimbale la léegi delloo la jël delloo jël Sénégal nee na yàlla màng da jëm ci ku man ca yàlla sakartu wal maa i xaddi jaadali muqalidan na maa yi sakkatu sant naa man ka nga xam ne bi xóotihi ci ak dundam la may dundale wal maa yi ak ndoxam ci la may nandalee xat jaada tabe na lii ñeel ma muy dundam nga ak ndoxam nga muqalidan mbir moom muy aji saxal dàq na maa yi sama ndol sama la ni na sant naa yàlla mi nga xam ne géej gi lu fi nekk lépp bu ma dundee moo ma jox bu ma naanee moo ma jox moo ma koy may waaye du tubaab bi du nasaraan si te duma ci sakk kenn mbibét mu dima dimbale yàlla moom fu ma nekk mu may dolli sa kartu sant naa man ka nga xam ne bi xóoti ci ak dundalam wala euh, bi xóoti ci ak dundam wal maay ak ndoxam xat ca dëgg-dëgg jaada tabe na ko lii ñeel ma mu xolli daan mbir moom mooy aji saxal dakk na ma ay sama dollar bu may sant daal du nasaraan si ki may sant mooy yàlla mi ma jaar la ci loxo nasaraan si lépp sabab bi juddoo foofu waaye moo ma doon dundal mooy ki may jox ndox lépp moo ma koy jox waaye nag lu ma mën a ñàkk rek moo ma koy jox waaye nag moo ki may saxal saa su ma jeexalee rek ak dund wala ndox rek mooy ki may saxal ak ndolla kon dégg ko def naa ne bayit bu leer mu delloo waxaat ne bi saxar ramadaan masat ba tey ñaari xasida yi kon ñoo bokk lu leen tëkki bee saxar ramadaan masat la bii saxari ramadaan masat mu ne xasida gi kon ñu ko taalif ba tey bi saxari ramadaani masas ci weeru koor ramadaan masas muy 1340 ba tey daa daa ba noppi ne baaraka lii naafiu fi ayaati wali ayaati sallabal ayaati baaraka barkeelal na lii ñal ma an naafiu yàlla muy aji jëriñe ji fii ayaat sama dund gépp waxal ne la ba rinki na moom yàlla al ayaati aya alquraan yi li ayaat yi ñeel li nga xam ne mooy sama dund nee na yàlla mi tudd naafiu moo barkeel sama dund gépp ci ay njëriñam waaye ba noppi nangu alquraan loxo bu mën a nekk secret ya leer ya barke ya cay nekk ya cay jolli yëpp rinki ko ñëw jox ma ko mën ahmadu sama dund lépp alquraan la baaraka barkeelal na lii ñan ma an yàlla muy aji jëriñe ji fii ayaati dund gépp wasalaba rinki na ar ayaati ay alquran yëpp muy alquran li ayaati ñeel sama dund sama dund gépp alquran la ak ay njëriñ saraxtu yoonal naa fii tajdiidi ci beesal diinil ahadi diine yàlla mii nga xam ne mooy kenn li wàcc yi ngir jëmmam ji alkarimi jay aji tedd moo tax ma def ko keñ nga ko def mu ne yowmal ahadi ci bisub dimanche bisub dibéer nee na yoonal naa nag mooy sariya bi yàlla joxoon noo yoonal ko jox ko ko ba yonente yàlla muhammad sallallahu alayhi wala si away naa ilayka wa maa wasanaa bi ibrahima wa moussa wa insa ñëpp lan lañ leen wax ana aqimoo diina taxaw leen diina ay kanam wala tatafaraqoo fiihi kabura alal musrikina yéen diina jooju damaa ñëw na ngir yoonal ko moom moomu nga xam ne diina ji kenn moomul ko ku dul yàlla ko joxoon noo yoonal ko mooy yónente bu yàlla njëkk jox sariya aadama yónnoon nañ ko waaye joxuñ ko sariya waaye noonu la njëkk jox sariya ba yónente yàlla moom salaay salaam ñeen damaa ñëw na yoonal ko gën ko yeesal yoon yi tàll ñar beesal ko diine yàlla mi nga xam ne mooy kenn waaye beesal gi dara lan ko lu dul ngeen jëm yàlla mi nga xam ne mooy aji tedd ji waaye bii ma ko yeesal maa ngi koy yeesal di ko yeesal ci bisub dimanche dibéer lil Mustafa nawaytu maa yujidu sunnatuhul xara wa inni ahmadu xibaatu muxnin may yàlla muy aji doylu yàlla koo jombante na an àndaa di wëlis muy am dend wasalat eggale na ko lii ci man kasfan ànd ko kasfu kasfan ci kasfu waaye nag maa la am di ànd ko tëbbu xéewal ya na may yàlla muy aji doylu ji nga xam ne jomb na wëlis di am ay dend fala taj'alu lillahi andaadan wa antum ta'lamuun saa borom nee na bu leen wutal yàlla ay ndend te xam ngeen ne yàlla amul ay ndend te ku yàlla xam ngeen ne yàlla moom amul ay ndend loolu moom ku ne xam na ko moo tax may yàlla muy aj doylu ji ay xéewalam yëm may jox nee na eggaleen e, e, ay xéewalam ay mayam eggale ne ko ci man mooy jox na ma ko rek waaye defal ma ay kasfu may gis loo xam ne ñëwagul waaye na ko fu mu toll di ma dooleel ay xéewal xéewal gu jeex rek geneen ñëwaat moo tax ma ne si baatu yàlla muy aji doylu ji nga xam ne jàlla jomb na an àndaadi walis di am ay ndend yàlla amul ay ndend de du pinco kenn di waxtaan ak moom wala mu am ay ndend wasalat eggale na ko lii ci man mooy jox na ma ko jox na ma wasalat eggale na lii ci man kasfan ay kasfu kay jox na may ci boppam moo ma jox ay kasfu mooy may gis loo xam ne waa ji guta ñëw te mën naa xaw téeméeri at ma gis ko man sëñ Tuubaa nee lu ma ko jox mooy may yàlla muy aji doylu ji nga xam ne jomb na walis di am ay ndend nee na wasalat na lii man kas fan ay kas maanaam may ñoo may wan ay kas waaye na maa la am daal di ànd koog tëbbu xéwal ya may saa su jeexee rek geneen xéwal ñëwaat. rajawtu yaakaar naa rabbi sama borom wa xaqaqa te dëggal na arajaa yaakaar la amul lenn lu may yaakaar ci borom te yàlla du ko dëggal jox ma ko ndax nee na yàlla du sooyal sama yaakaar moo tax mu ne yaakaar yàlla rek laa koy def parce que saa su ma yaakaaree yàlla mu dëggal sama yaakaar jox ma ko boo yaakaar ku dul yàlla nag sa yaakaar moom def naa ne tas rek ci lay dëkk moo tax mu ne naa sama borom te wa xaqaqa dëggal na araja yaakaar la wala yuwajjihu te du jëmale mukk xaraja benn tiis li sadri ñeel sama dënn mooy yaakaar dara ba noppi te duñ la ko jox loolu day waral xatuk dënn léeg-léeg am na xam ne ñu soxla dara ci nit ñi rek mu tëg seen dënn da cee xat tabarka la waaye nag nee na yaakaar naa sama borom te dëggal na yaakaar la te nee na yàlla du ñàkk a dëggal yaakaar la lu ma soxla koy jox moo tax sama dënn du tiis mukk benn tiis du mooy aw tiis mooy nga soxla dara ba noppi te la ko jox te yaakaar nga ko la ko joxut xaraja nekk na muy ak tiis ngir lan joxul la moo tax moo tax ne wala yow jiw du jëmale mukk li sadri ñeel sama dënn benn tiis parce que may yàlla yëpp jox na ko kon kooku dënn benn tiis du ci